am na am na ay audio ngeen dégg audio yi am na am na enquête interne de la gendarmerie ngeen gis enquête interne de la gendarmerie le mars euh, septembre la ñuy fal premier ministre ngeen gis ñu fal premier ministre donc man du ma dëmm du ma jinne du ma rab yorumay kóori mais amul lu ma leen mus wax lu deñ ba ci moindre détail amul lu ma leen wax mu deñ donc nit yi dofuñu beneen doomu aadama mënul jóg ne kii day fan ñoo gëm ko parce que ñoo xam nañ ni kii li mu leen di wax leer na naññi te kenn musul fekk lu ma wax nga ne day fen jël ko ne non lii la comme nu ngeen koy defee kii nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany bu mu fi fenee naan ay Sénégal ñaari kii la am ñaari médecin nangam nangam légiste xawma la nag la nag la gis nga nu ngeen ko teel a fen looye ne ko dangay ngay fen douze la kon nit boo ko ne da ngay fen da nga koy dindi da ngay dindi teg mais man musuguma wax nit ak doo mën a doon noon ne day fen dindi ko teg fii am ojo am na nga gis ojo ma amna ay gendarme yu fa nekkoon yo xamni ne dañ leen fa jëlone ki melni Baye Fall rijaal ngeen gis lolu lu ma leen wax musna na kenn musul dindi lu am musuma wax lu amut donc ni di dofuñu jënd japp leen lutax ñi ñew ci live bi di ci fess dal di déglu diko dag diko partager parce que ay nit yu conscient lañ yo xamni xamnañ ni kii lim leen di wax wuti ci deureum wuti ci alal wuti ci siw wuti ci dara da leen di wax te yalla tax te li leen di wax mi ngi nekk di exister il faut que ça soit clair elle est nagne, donc soyez prêts soyez prêts ne vous laissez pas divertir taxaw leen degrelen, leen leen leen voilà dë dëggu leen waajal leen dañoo jommi man man kenn mënu ma defal var dañoo jommee jommi ba dañuy monter sax ay ay yu may plané di fon ñu koy monter ben montage la gis ñu koy monter mais c'est c'est rigolo après nga ngay xam dama leen mëne dama leen gagner dama nekk ci kaw xoj leen nee naa dama leen xoj ci kaw këf seen xuuri ci suuf di ko boxom di ko boxom comme caaf ñu yuux moo tax ñu jommi jaaxle ci samay mbir man rek maa leen të man maa leen sonal maa leen toroxal man maa leen wili pande maa leen futti futti seen silibu nday futti leen futti seen stringu nday yi futti leen futti seen kilotu baay yi futti leen futti seen silibu baay yi muy am poose kanam yi man maa leen def loolu te ba léegi man rek të maa leen jommal maa leen di wax lu musul dégg maay wili pande seen maam yi partout maa leen di fete fete ni bele fete maa leen di toroxal bañ ne tot man maay def loolu te ba léegi kenn ci ñoom mënumaa arrêté nii ci saayir nii ci baatin donc sénégalais xam nañ fan li ñuy déggee loo xam ni du deñ fan li ñuy déggee loo xam ni lu leen waa ji wax ñu gis ko am na benn mbokk sama benn xarit bu jigéen boo xam ni mbokk kii mbokkam la quoi Mamadou Mame Diop président assemblée national sama xarit boobu ak benn cousine Mamadou Mame Diop ñoo liggéeyandoo mais sama xarit bu jigéen bu ñëwee di wax ak ah, nii rek Mollah mu dugg kër ñu Mamadou Mame Diop rajaxe fa tout sama xarit bu jigéen nee bu mu liggéey see nee na euh, cousine Mamadou Mame Diop bi da ko doon xaar dafa ñëw rek mu ne ko laa ilaha illa dugg na sama kër nee xale bu jigen bi nan ko sama euh, sama xare bu jigen nan ko ah mu ne ko wuu moo laa dootul waxati lumay dindi mo la dotul waxati mu ko lu xew mu ko moo laa de gi Mamour Amadou mam Diop la dugg radja xena lepp lepp lepp lu fa new keur gi yep la wax la ilaha illallah xam na ba xam rek mam Diop yi famille ba ku ci nek la nga am ndaw si fofu la jébbaloo jébbalu ci saase ne ko wool moo laa wool moo ma wax ak mom wallahi gi nit man de dama ko doon weddi de mais bu mu duggé ci kër Mamadou mam Diop gogou dugg ba ci dugg ci sen silibia ya dugg ba dugg ci almoire ya dugg ba dugg ci pantere ya dugg ba dugg ci souf lal ya génn bagage ya wili pande ko dama tit dama ni ki du nit nan la def ba dugg ci ñoon samay mbokk lañ ñu jël téléphone bi jox ma ndaw ci wo ma sa ah, wa na ngeen def la il man yow mooy Mawla foo jël say information man ko ah, lan la no sama kër nga dugg man dama la wéddi won de mais nga dugg sama kër mbokk ya génn ba génne almoir ya génn ba génn mbóot ya génn ba génn euh, kaña ya génn ba génn soccet ya génn ba génn muus ya génn lépp nga génne man moo laa yow doon nit foo jëlee ma ne ko non man maa ngi ni toog de ah ñoo de jommal nga ñu foofu la wax foofu ndaw soosu lu léegi jébbalu kenn du ko jiitooti ci laay yi kenn bu ne moolaa rek mu daw ne waa rek taxaw parce que lu la moolaa wax kaamil la lu la moolaa wax du deñ lu la moo laa wax nit du ne day fen teg fa dara du musa am du musa am vaar du mu ko musa am ndax damay dem ci information yi di loqati pur di leen ko tegal donc loolu il faut que ça soit clair du ma waxantu du ma foo ci information du ma ci caaxaan lu ma wax am na ma jox leen benn explication des fois mun naa na juum ci tour. tour. bu yàkkam parce que man li may jot ci information dafa bëri ma bëri ay informateur yu sûr yoo xam ne dama leen valider ñooñu seen wax du ci hésiter parce que ñooñu ci information la ñuy liggéey am ñoo xamni dañu am quelques problèmes ak ñenn ñi ñoo jox ma ñooñu ku ma ci jox danaa analyser dina réfléchir dina jël sama temps da ngay gis ñu jox ma benn dossier ma téye ko lu yàgg. parce que tant que samay informateur validé wuñ ko du ma ko génne ñu jox ma benn information déglu leen de <laughs> fen du ma ko def de ma suur Mansour Junior doomu daaw dafay dafa dof def taatu neen di yuuxu ci mbedd yi baayam ñëw na jël si ko déglu leen de gaa yi déglu ay mbokk booy bi woo Mansour Junior fii ci Canada man ki may wax Ottawa ñu woo Mansour Mansour non non dofuma de dofuma de jëm gis sama ñaari copain déglu leen de ñaari copain ñëw ñu woo ma benn groupe Mansour Junior ak deux samay copain Mansour Mansour Junior doomu kii di Daouda fay ñu ñëw Mansour wooye man sa waa Mawla ne ko moom ma ne ko wooye naa man la Mansour quoi man nga doon dama dof quoi ma ne ko ah waaw waaw waaw non non man dofuma nangam naa la expliquer vraie histoire bi dofuma da <laughs> xam ne man maa la gën a dof Mansour déglul bu baax nag Mansour lépp laa xam te kaay déglu kaay déglu kaay ak ñi ngay mbooy <laughs> booy man maa leen gën a feebar man ay information pale laa koy jëlee te lu ma la wax du dañ Mansour génn te am na ku dof ci seen kër mais dama juum ci tur bi ñu ñu bu ko nëbb yónni Mansour Junior parce que Mansour Junior laa wax Mansour Junior yow di ma fen loo déglu leen bu baax ku dof a ngi ci kër ga te dinaa ko wax ku dof mi ngi tudd Abdourahman Faye Abdourahman Faye Ibrahima Faye mooy baayam dafa dof fii mi nga Sénégal dinaa la expliquer histoire bi Mansour da ngay nëbbut seen famille dof Abdourahman fay bu doomu Ibrahima fay bokk ak Ibrahima fay ak sa baay bokk ndey ak baay Ibrahima fay di sa mbagu baay kooku di sa cousin seen baay yi bokk ndey ak baay ngay imbécile ma juum ci tur bi ngay profito seen kër am na dof sa kër ndey am na dof sa kër baay am na dof kër Marème Faye Sall am na dof ndax da ngeen di sàcc alalu sénégalais yi di fen sénégalais yi di mandé alalu sénégalais di ci toxe yamba di ci drogué wu ñu ne yéen dañ may nax ma ne Mansour Junior ñu yónni Mansour ne demal fen loo ko demal fen loo ko non non non eh, rek Mansour Junior génn Mansour Junior tuddee ma cuucu fay baayam di aarama fay ñu yónni Mansour Mansour ñëw génn ñu waaw Mawla waaw da nga juum foofu non non non kii dof dof amul man dofuma maa ngi nii maa ngi naan waaw dama bëgg nga jéggalu mais xamul tax ma dafa bëgg nga jéggalu ma def tek ma ne waaw naa jéggalu man xam naa ne histoire bi am na man xam naa ne xëy na maa juum ci tur bi mais man xam naa ne histoire boobu am na lu leer naññi ma def tekk damay lig man gars yi damay xeex ak ñoom ci maayin il faut être très intelligent Abdourahmane Faye doomu Ibrahima Faye moo dof mais comme dama tudd kële ñu bëgg a nëbb gis nañ ni dugg naa seen kër ba gën a dof fa ñu léegi comme dama juum ci tur bi moo ñu yónni booy bi ba toog de tekk di ko déglu ba dama juum rek bama paré pare paré pare library bi rek sama informateur informé na ma djunga ci tour bi man ah ñu ne ma non non non du Mansour bo Mansour woguma de ñu ne ma du Mansour abdourahman fayla oke da ngaa juum ma ok ok le lendemain Mansour woma oui ça va non ak sama yenn ñaari copain ñu def ben groupe 3 ça va non nga def ça va oui moo la da nga ki man man dofuma man dofuma man ma ngi ni di dox man musuma nek auto wa ah, musuma nek auto wa ah, te ku dox auto wa ah, la ne de mais dama djum ci tour bi ñu koy ñoom fan yëpp ñoo ko yónni man dofuma maa ngi nii waaw dama bëgg nga dem jéggalu ma ne ko waa naa jéggalu def na tekk ñaari jour Mansour ñëw ça va Mollah ce que jéggalu nga wu ma ko ma effacé message ba léegi tontu wu ma ko ba bu ma ko tontoo Michael Jackson ma ko tontu parce que man xam naa information bu ma xam naa fu ma ko teg am na te kenn mënu ko teggi kenn mënu ko teggi wallahi lu ma wax kenn mënu ko teggi information bi moom day am xëy na nit bi mooy tur bi laa juum mais information bi day am rarement laa juum ci tur bi ma ne tag mu ne ma jëmal dama bëgg nga dem génn nga jéggalu ma ne tag noppi Mansour si ñoo war dem woo xolal ñu ne dañuy nëbb seen dofu kër gi de jarbaatu oyof sër ñu ne dañuy nëbb seen dofu kër gi Mansour Junior woo duurkat bi nga xam ni mooy baa jaxase def video, xoolal na ni vidéo ci live ja xasse ma ngi ni man la ci ñor man la mo la wax dama dof damuma ga na no mo la def mu defen no mo la def mu defen ba ja xasse no mo la def mu dul duul na mo la def mu defen mo la def mu dul def tek ñu yoni ma vidéo def tek na <laughs> ñu xamuñu bandi lañu xexal chef de bandi donc xamuñu ni bandi bandi bandi la ñi ay chef de bandi lañ man bandi la ma leen gëna nek wuyu main dina leen di leen lekk ci xel ma def tekk comme nee na ma jéggalul jéggaluwu ma ma noppi ma mu dem di def yi laay naan waaw maa ngi nii xoolal ma xoolal ma maa ngi nii man taxu ma man mu may sosal di ma tiiñal ma bàyyi ba pare tey ma wax la nag Mansour yow koo xam ni sa baay ak baayam ñoo bokk ndey ak baay yow yow Mansour Adama Faye la jur Abdourahmane fay yow Mansour Junior ñu ngi la tuddee ma cuucu Faye yow fii nga nekk Montréal gii ma nekk kii nga xam ni sa baay nag mooy aadama fay tey ma wax la yow seen mbokk kii nga xam ni mooy Abdourahmane Faye ki ko jur mi ngi tudd Mamadou Ibrahima Faye Ibrahima Mouhamadou Ibrahima fay mooy jaaykatu yàmbaa boobu newoon amerik ki nga xam ni moom la Macky Sall dee doomam moo njëkk am alal seen famille boobu sa famille sa baay ngi torox tott di wër caga ji yow Mansour Junior sa baay Adama fay di torox tott nekk ndakaaru di wër caga ji douze penc yëpp sa baay ngi wër caga ji Adama fay ñu tuddee la ma cuucu fay ma cuucu fay ne woon Kaolack moom doon football ka taxawaalu foofu noonu nekkoon ay ifan don taxaw tok buntu boulangerie ivan ba di difa di xaar mburu fagadaga sa bay sa sa kuñ la tuddé ibrahim ki nga xamni moy mooy ma cuucu fay ma nga won tok ci buntu boulangerie ba di xaar 4 h du matin fagadaga di football les 11 diable di ballon fële ci ivan ginaaw stade bu sabai, euh, euh, euh, donc sa bay di taxawalako wundalu dak biira laté biiralaate ñu tuddé la ab tiaga moy ma fay donc sa kii nga xam ni Ibrahima Faye nekkoon Amérique di fa jaay yàmba jël alal googu di ci fayal Macky Sall appartement am boobu nga xam ne moo nekkoon fële ca euh, euh, fu fu car rapide di jàddee noonu pour dem Liberté 6 ci maanaam Walfadjri Ibrahima Faye di jaay yàmba Amérique am fay problème am fay problème Ibrahima fay moo doon fayal moo tax Macky Sall fayé ko lolou tuddé ko domum bu bu top ci Amadou mu tuddé ko Ibrahima ndax jaay yàmbaagu sa sa Ibrahima don jaay Amérique ak taxawaalo ko wëndaalu ak nan Sangara bu ñu Macky Sall jëlé pouvoir bi Macky Sall jox ko Cité Tobacco Cité Tobacco ñu problème Macky Sall dem di daané Cité Tobacco di génné gaaya Ibrahima Faye ñëw di saaga Macky Sall ay nday foofu yëpp Macky Sall moo ko daggaloon Ibrahima fay yaa ngi dégg lu ma la boobu Macky Sall nga dëkk dërkale avant moo dëkk ville ak feneen ak feneen dama lay wax yow say juróom-ñaari maam ba ci sa maam As Faye doon naan Ricles Kaolack ñu tëj ko ci kaso yi ndax dafa détourné xaalis si Seko sa maam As Faye nekkoon ca Kaolack di liggéey jur sa sa sa oyof sër newoon ca Sekoya fa ñuy woowee ndaga cosaan la foofu la jure oyof sër muy sa bàjjan yaa ngi dégg sa sa sa histoire maam sa maam doon naan réclas takk umiyatu Oumiatou Diallo moo jur sa maam ki takk ki jur Marème Faye mu takk ko Oumiatou Diallo Oumiatou Diallo nekk aide infirmière jógee Saint-Louis ñëw mu dëkkal ko fële ca Kasnack loolu moo tax Kasnack gën ko dëkkal wetu mbutu saw foofu la sa kiñ sa turandoo di ma coocu fay foofu la juddoo Kasnack foofu la ma coocu fay juddoo ki la tuddee ca Kasnack wetu mbutu saw hôpital bu ndaw ba hôpital bu ndaw boobu noonu hôpital bu ndaw bu jàkkaarloog marché bu ndaw foofu la mu cuucu fay juddoo ñu foofu la ñu këppatee kooyam bi mu cuucoom bi maa may dégg lu ma la wax kooku lañ la tuddee ki nga xam ne mooy Marème Faye moom baayam mu ngi ko juree fële ca ca ca cosaan nga ca àll ba àll bu xonk Ibrahima Faye ma nga juddoo ca Kaolack Ibrahima dem Amérique mu demé Amérique yàmbaa la fa do am ñaari jabar ben jabar ji mu yobon ko bu Macky Sall falo mu nek ambassade nek Washington légui mi ngi fi sante Diallo moo ñaareelam kon nak kii Abdourahmane Fay mo dof na la expliquer problème bi te yo yaa ngi fa won yene ngene da ngeen may nax parce que damaa juum ci tour yi ngeen ngay gey génn di demal Ibrahima Fay demal nga génn Abdourahmane fay yow da ngay vidéo rek ne nga dofoo génnal Abdourahmane Faye Abdourahmane Faye génnal Abdourahmane fay na Abdourahmane fay génne na dofut na Abdourahmane Faye ki nga bokkal seen bàyyi bokk ndaa baay ne tam newoon Ottawa baayam ñëw fii Ibrahima fay yenu doomam jooju dof yóbbu ko senegal ñu yóbbu ko interné ko hôpital dof ya sa baay bañ ne dafa tane sa baay moo ko jël seen kër Adama Faye au lieu mu dem kër Ibrahima Faye ñu nëbb ko seen dof gi dañ koy bëgg a nëbb seen dof gu nekk seen biir kër dañ ko bëgg a nëbb tey ma la naa wax sa baay wax sa wax say maam wax ba wax la kan kan moo jur yow dof boobu nga bëgg a nëbb man ñu la dof bi Abdourahmane Faye bi doomu Ibrahima fay bu mu dofee Ibrahima Faye dagg na avion ñëw fii gisante naa yow ànd naa yow dem ngeen gisi ji Abdourahmane fay baayam jël na Abdourahmane fay mu Ibrahima Faye delloo ko au lieu mu dem dëkkal ko këram Ibrahima Faye mu dem dëkkal ko sa baay sa kër baay Abdourahmane Faye kan la fan la ne ban kër la newoon kër Adama fay sa baay fa la nekkoon fa la nekkoon dof Adama Faye am ay gan ñu toog ci saal ba ñu jël Ibrahima euh, Abdourahmane fay dugal ko ci néeg tëj ko fa mu nekk dof dañ ko dañ ko yóbbu direct baayam bu mu ñëwee fii Ibrahima fay ñëw na fii ci Canada ànd na ak yow yow gis nga dof bi kon xam nga ni bu baax moy wax waxi dox yo xam nga ni mola bi amna information mais ngay ngeene da ngay troubler le peuple sénégalais yow da nga dof boy boy boy boy ma ciu junior yow da nga dof dama dama yor dama yor affaire yi sama loxo yow nga troubler peuple bi yow xana da nga dof yow dama laaj ma sa sa sa sa sa sa sa badjan ma ciu fa euh, dama laaj ma sa trondo ma ciu fay dama ne ko moolaa nan la motul wajjo dama laaj ma sa turandoo ma cuucu fay dina leen moytul bu baax waa jooju dama laaj ma sa baay Adama Fay bi doon laal famille jàllo eh, jàllo yi ba toj kër di saaga wa waa jël mairie de Grand Yoff dama laaj ma Fay dama ne ko Adama Fay sa sa dama nga laaj ko Mollah Morgun dina la moytul kooku ba sa baay dugg ci kër ga këru jàllo jàllo ya di laal seen caat ma te ba tas seen sëy ma loolu yëpp wax naa ko fi dama laaj ma sa baay dama laaj ma sa turandoo ma cuucu fay dana la moytul waa ji dama laaj ma sa baay Adama fay ne leen la moytul waa ji boo bëggul dégg say juróom-ñaari maam dama laaj ma sa bàjjan oyof sër la moytul waa jooju bëggul dégg say juróom-ñaari maam say tot tot juróom-ñaari laaj ma Macky Sall ne la moytul kooku boo bëggul dégg say juróom-ñaari maam say tot tot juróom-ñaari maam wala ca sili bu nday booy bi ñëw naan ma dama woon moom léegi Ibrahima Faye ñëw ànd ak kii nga xam ni mooy booy bii di ma cuucu fay junior ñu dem seeti ji Abdourahmane fay jël Abdourahmane Faye Abdourahmane Faye yóbbu nañ ko dakaar interne ko foog ni wér na ñu récupéré ko au lieu bàyyam yóbbu ko këram yóbbu ko mu yóbbu kër papa yi kii di kii di Mathieu Faye donc mooy kër ñoom Adama Faye Adama fay bokk ak Marème Faye Sall ndey ak baay sa ndey sa maam bu jigéen Oumiatou Diallo moo jur ma cuucu fay mooy taaw mu teg ci Ibrahima fay moo ci togg mu teg ci sa baay Adama fay mu teg ci Daawda fay mu doog ci teg ñoom Malick sekk ci la ñoom ki Omer Seck ñëw commencé takk sa sa bi nga xam ni sa Omer Seck mi nga doxaan sa maam moment bi mu nekk ki nga xam ni moom aas fay takk sa maam mooy Oumiatou Diallo mu sàcc xaalisu onkat pour bégal sa maam mooy Oumiatou Diallo ñu jàpp ko tëj ko ci kaso yi Oumy di Diallo jaar ci suuf di gënanteeg Omer Seck Omer Seck poussé ko mu bind certificat pour montrer que dafa bëgg a bàyyi sëy bi ñu jël lettre boobu fekk kii nga xam ni mooy papay Marème Faye Sall ci kaso bi jox ko lettre bi nekk Oumy di Diallo nee na nga signé parce que dafa bëgg a arrêté sëy bi foofu la ko Omer Seck këfee fekk mu ngi ko doon doxaan looloo ko fa génne mu daw ak moom. ñu dem Saint-Louis dem jur dem Diourbel ci lañ amee ñom euh, ñoom kii Seck euh, ñom malik sec ak frère bi am ñaari cheikh yi et cetera et cetera man say juróom-ñaari mam la lay wax. géwél yi tagg say mam xamuñ sa mam man ma xam sa mam man ma xam bu mietu Diallo ca kaolak xam As sec ca kaolak As As fay ca kaolak kon nag déglul booy yow mënoo ma dribbler si si booy cent pour cent dribbler say juróom-ñaari mam la lay waxal. ay ca ñëwal donc ñu ñëw jël seen donc ñu jël ko kii ñu yóbbu ko kër Adama Faye Adama Faye nag di papay kii Abdourahmane Faye dof bi te ñu ko fii ci Ottawa te Ibrahima boy bi nga xam ne mooy Mansour Signor ma nga fa woon ak seen baay Ibrahima Faye ma nga fa woon mu xam nañ ñoom seen kër am dof parce que dañuy sàcc alalu askan wi booy bi génn taatu neenam fekk kër kër ga jàllaxoo kër ñoom Mansour si ñor booy bi bu mu génnee def taatu neen parce que pa Adama Faye caga bi jur euh, kii nga xam ne moom mooy euh, Mathieu Faye junior moo jëloon dof bi ndax doomam la nag parce que frère am moo ko jur dof bi bu mu jógee internat ñëw fa ñu tëj ko ci kër booy bi tàjjee ko rek génn woo ak taat ne gane gane tasaaroo tël tël tël gane tasaaroo wooy wooy booy bi ñëw di saag seen trouble fa dama laaj ko sa baay dama ne sa baay nu laa def ba xam ni man xam naa ni sama gàlle Abdourahmane Faye sama cousin wala sama frère ba mu génneeg taatu dama laaj sa baay nu ma def ba xam ko gan ya gan ya am na ku ci génn wax ma ko gan ya am na ku ci génn woo moo laa yow doo nit ma ne lan la ñu ne ci tur bi rek nga juum man ah, ñu ne ma histoire bi am na kay man mii maa ngi woon ca gania ya ko bu mu génneeg taatu nee na ma xuuram yu ñuul kukku di tëjax tëjax yi di def nii di yuuxu di yuuxu ñu daw mu ne ma man yi maa nga doon wër buntu ma ne ko ah mu ne ma salon ga kër saal ba kenn xamul kanay ñi nga tok ci salle ba waxtan gu neex go xamni waye bukan mu ne ma mola bu gan bu génnee bu gan ga bu bu ba génnee ni tëy mu ne wuy sama day dof ga génn neena na gaa di tassaro ñi di mbëkkante buntu ba te bir gan ya jumode. ko ci génn ne ma ma nga won te gan ya ne ma moolaa juumoo de wallahi ne ma moolaa juumoo de tof ba ga fa de dof ba ga fa ñu sen dof xamal senegal ka am nañ doomu dof abdurrahman Faye kon au moins kër kër ga sa kër baay yow yow Mansour Junior kuy dem sa kër baay moytu te xam ne am ngeen ab dof bu nekk ci kër ga muy Abdourahmane fay doomu Ibrahima fay moo gën ngeen di jël ay gan teg leen foofu dof génn ay xuuru ñuulam tëpp ci pexe ab kooyam bu yor ab kuur bu gën ay gan ya loolu ku ci dee yéen ay assassin ngeen kon ñee ñu moytu kër Ibrahima fay nañu moytu kër Adama fay am nañ dof bu tudd Abdourahmane fay buñ jur bu ne woon Ottawa dafa dof baayam jël si na ko ba delloo ko kon nag mbokku comme gan yi wax nañ benn gan bi génn na wax ma ne ma nañ moytu foofu dinaa leen ko wax moytu leen yéen taxawaalukat yi moytu leen kër Ibrahima fay am na dof de jur na dof de ngeen moytu encore kër Adama Faye ndax frère am moo yor dof boobu jëlee nañ ko internat ba dugal ko ci kër ga bu fa booy bi génnee ku fa dóor kuur nga de yow la Abdourahmane fay ku mu rey yow la du mujj fenn de am nañ doomu dof am nañ doomu dof Abdourahmane Faye di doomu Ibrahima fay nekk it doomu Adama fay di frère wu wala cousin wu ki nga xam ne mooy Mathieu ci senior bi nekk fi booy bi Ottawa la ne woon nay leer Ottawa sax taatu neen la fa defoon taatu neen yaramu neen di yuux ci mbedd yi nay leer waxoon naa leen envoi d'argent bi tamit tool am na sàcc yi sàcc Ibrahima fay ay sàcckatu milliards lañ nee naa leen chaque mois dañuy jël ay sénégalais yi nekk foofu am seen représentants yi nekk fii wala ñu jaaree ko ci ay Western Union duñ ko def ndax xaalis bi dafay bëri dañuy jël benn 30 million jox ko benn man sénégalais mu yónnee fii benn booy booy booy Ibrahima Faye benn Abdourahmane fay wala Mansour si ñor dem jëli ji ko cash fan la ñuy liggéey xaalis bu ñu sàcc dafa bëri xaalis famille Marème fay Sall bi lu ñu sàcc dafa bëri mënuñu ko jaarale ci Western Union mënuñu ko jaarale ci MoneyGram te nuñ koy envoyé dafa bëri seen doom yi nekk fii Adama fay ay million lay paquet di ko yónnee paquet par par di ko yónnee doomam ji nga xam ni mu ngi nekk fii ni Abdourahmane fay donc xaalis boobu nag dañ koy jox Sénégal ko récupérer xaalis bi cash woote fii kooku joxe ko en dollar donc noonu lañ def ay million jël xaalis bi jox ko benn famille ñooñu jël am ñu ñu yabalante fii Abdourahmane Faye boobu ne Abdourahmane fay ne nañ ko dugalal xaalis bi ci kontam ñu dugalal ko ci kontam banque américaine bi récupérer xaalis bi ndax booy bi taxawal la fa nekkee màndi sniffe ko ba dof donc ñu jël xaalis bi mu récupérer xaalis bi xaalis bu mu récupérer n'est-ce pas mu jël xaalis mu war a dem mu war a jël xaalis bi ci banque américaine bi mu war a jël xaalis bi ci banque américaine bi donc banque américaine bi ci boppam récupérer xaalis boobu parce que booy bi moo joxe kontam ñu dugal fa xaalis bi ay millions banque américaine bi récupérer parce que booy bi dafa leb xaalis bu bari yoreel gouvernement bi xaalis bu bari ñu jël xaalis bi booy bi jóg dem ci ñi nga xam ni ñoo dugal xaalis bi ci kontam te moo leen ko jox ñu dem mu dem fa mu dem fa di leen menacer de mort ne nañ ko delloo xaalisam Abdourahmane Faye dem ci ñi nga joxe ne nañ ko delloo ñooñu ne ko mais dugalal la xaalis bi ci compte bi nga waxoon mu leen non non non xaalis boobu mënuma cee jot gouvernement américain parce que booy bi Amérique la nekkoon di def ay toj-toj famille papam papam noonu la defee woon ay toj-toj Amérique Ibrahima Faye toj def na ay toj-toj daw donc yóbbu fa doomam doomam def fa ay toj-toj mu Abdourahmane Faye mu rawale Abdourahmane Faye Abdourahmane Faye ñëw Canada loolu moo indi Abdourahmane Faye Canada donc booy bi dafa bàyyi ay casserole Amérique compte boobu noonu dafa bàyyi ay ay toj ay tojaange yoral gouvernement américain bi xaalis comme day mandi ak perte sagom commencé dof mu jël contre numéro compte banquer bu nekk Amérique dem jox ko ñooñu pour ñu dugalee ko fa xaalis ñooñu dugalee ko fa xaalis ba ba euh, gouvernement américain bi nangu lépp téye ci loxoom. ne non booy bi daf ma yoral xaalis léegi nag booy bi dem ci compte am fekku fa dara booy bi dugg otoom dem ba ñoo ñu noonu ñi nga xam ni ñoo nekk fii ñoo jox xaalis bi dem ne leen da ngeen may delloo sama que fi ngeen ko dugal foofu banque américain bi Amérique Amérique euh, gouvernement américain dafa nangu xaalis bi ñooñu ne ko mais yow yaa ñu jox compte dugal nañ ko fa léegi ñun lan ban affaire lañ ci am pour dem toppaat naan dañ dañ lay joxaat xanaa ñu dañoo dof sa baay fële la joxe ay millions jox nañ la ko fii yaa ñu wax compte bi ñu dugal ko fa dugal nañ ko fa mu ne da leen di woowal dikk waaye bu commencé dof waaye je vais appeler DIC le plus rapidement possible DIC bu jógee Sénégal ñëw fii xam nga Sénégal lañ nekk di lëmbe ñoom dañoo jàpp sax fii ka <laughs> booy bi dafa commencé dof foofu la commencé woon dof booy bi comme booy bu mu ba ñu naan day ko fii amul dara booy bi génn di yuuxu def yaramu neen di yuuxu parce que dafa dem ci guichet bi fii ci guichet bi naan day récupérer ñu ne ko dara am fa booy bi génn def yaramu neen di yuuxu ah gars yi téye ko mu commencé caddi caddi dem ba ci famille bobu non nga xam ñoko ko dóolee bi di leen menacer de mort nan da je vais appeler dik wa dik de ñew ak dik dik gas sara marak dik, dik senegal lañu yem dik duñu gat senegal lañu yem di fa ngeen jaay fa doole japp sénégalais toroxal won ne tortu téré leen marche téré leen dik du tus du gas sara marak fii nii je vais appeler dik nan day menacer famille ñoo ne demal fu la neex nokul ca xaj sul ca xaj demal fu la neex fi fi Canada la dangaa wax dangaa wax ñu dugalal la ko ci compte ba dugalal nañ ko ci compte ba donc boo boo amee problème ak banque banque américaine yi ñu jël ko ñun suñu yoon nekku ci yaa ñu ko jox ñu dugalal la fa dig nag boo mën indil indil 40 booy bi commencé caddi caddi xaalis boobu moo booy bi dof carrément ñu woo baayam woo frère am bii di di Mansour Junior Mansour Junior déplacé wu dem foofu ànd ak baayam baayam jóge Sénégal dagg bi nu mu gën a gaawee Ibrahima fay bokk ak Marème Faye Sall ndaay ak baay di magu Marème Faye Sall mu dagg bee ñu ñëw mu ànd ak Mansour mii Mansour junior mi nekk fii di ma dégg mi ngi may dégg bu baax ànd ak Mansour ñu dem ci seen mu dem ci cousin bi baayam Ibrahima Faye muy euh, wax na mooy Abdourahmane Faye ñu dem fekk booy bi dof carrément ñu yanu booy bi lijjanti ko dem delloo nañ ko booy baa ngi Sénégal dafa dof kon Mansour ñoo la ëpp bopp ñoo la gëna a iya, ñoo la gëna a iya. yor sa sa ndey sax bo bëggee ma jox la information ci mom waxuma la sa bay sa nday bo bëggee suba suba suba ma def ko opération rebb dem génneel la fépp fu mu jaar maso nga fam ni ya tégal gaynde ma bàyyi la rek ngay def vidéo na ma ngi ni dofuma ya dafa fenal dafa <laughs> kon yow maso da nga doon nëbb sa dof sen dofu kër maso il faut assumer bu amé sa sa doomu bay bu dof wirut feebar ngeen koy neub il faut assumer looy génn man naay sos wala yaay sos ma naan wuy allo grand euh, est-ce que daf nga démenti bi yónnee ma ko message ma ne eh, boy bi est-ce kii dinaa ko léegi ma nettali ko jongalu baayam ne est-ce que kii wér na eh, grand yónnee ma message écrit grand es ce que daf nga démenti bi <laughs> ma ne kii dinaa ko fi nettali jongalu baayam rek booy bii bu moyul dinaa ko fi nettali jongalu baayam ci bir wax wa xam nga yow da nga def diffamation quoi mën na la porter plainte ma ne ko laggal aca na gaw mën na la wutal sax avocat porter plainte ka ma jox la ñaari avocat ka dem ñaar ñaar wey man góor grand kay di nga yor la yor man mi national da la yor mais man sax mën na la porter plainte mané ko ma mayale la ñaari avocat d'office ma lay fay ñaari avocat d'office xoma da nga dox xaw ma lu ma ma sa jangalu ba sa jangalu bàyyi de boo ma moytul ma jong ma nettali la sa jongalu baay Adama Faye fañ ko jongalee ak nañ ko jongalee opération rëbb dëmm tuuti laa laal ci moom mu daw moytul de booy wala nga laaj ma sa bàyyi kon histoire bi noonu la demee seen kër am na dof Abdourahmane Faye dafa dof bàyyi leen alalu sénégalais yi ngeen di sàcc bàyyi nee leen seen ndey yi ñu bàyyi alalu sénégalais yi ñuy sax-saxe ak sénégalais yi dina leen dal yéen ñëpp di ngeen dof mbaa ngeen dee dee gu ñaaw ak di ngeen dee balaa ngeen dee di ngeen dund ci torox tàng gu doy waar ndax seen bàyyi ay sàcc lañ ndax seen bàyyi ay criminel lañ ndax seen bàyyi ay njaalookat lañ ndax seen bàyyi ay doomi xaram lañ donc yéen mënu leen cee rëcc man nag boobu moytul ma jong nettalil sab congolu bàyyi wax naa la ko xam nga ni man du ma du ma joxe information naan damay génn naan ay naan damay démenti xam nga ni maa ngi woon ak dossier bi di def nànk ngay ra caddi caddi dem ci baajaxate di fa duula ko def vidéo di wane maa ngi nii ci mbedd yi xool fa ma doxuma <laughs> maa ne ma maa ngi lay gis ne booy maa ngi ne nii rek ne tey xale bii bu xamoon fan lay mujjee man tey xale bii bu xamoon man maay kan bu ko laajoon bàyyi mu ne ko moytul waa ji de tey bu laajoon Marème fay bàjjanam na ko ne moytul kii de tey bu laajoon Macky Sall dina ko ne moytul kii de tey bu ko laajoon bàyyam Ibrahima Faye dina ko ne moytul kii de bu ko laajoon euh, euh, bi nga euh, Daouda Faye dina ko ne moytul kii billahi laajoo leen boo leen laajee nañ leen raxasul bu ci loxo waa jooju kooku suñu bërki démb la xam kooku xamula say maam la xam Oumiatou Diallo sa maam Oumiatou Diallo la xam ne ko kooku xamula de kooku sa maam As Faye la dama laaj la dina ne kooku moytul kooku say maam lay xam kooku waxu kooku yemul ci say baay de kooku say maam la dem kooku daa xotti dem ba ci say maam umiyatu ba sa umiyatu jàllo fu mu mujjee ci Égypte Égypte sa maam avant moo daanu di am AVC di nekk ci GIE ku mujjee àndal ba ñu dem ci hôtel yi Égypte umiyatu jàllo mun naa la ko expliquer bul dugg ci man de dama laaj um yettu jàll sa maam ne ko dégg naa moolaa nee na balaa ngaa am AVC di daanu ñu lay teg ci ay chaise ànd nga ak benn gone gu doon ñëw fii ci kër ga fële ca ca ca ca nu mu tudd sa kër këru Macky Sall ba ca Mermoz am na gone ga fa doon ñëw ab jeune sa maam yanu ko yóbbu ko ñu def benn sortie fële ci Égypte ci hôtel ya la ñu fa def lépp mun naa la ko nettali boo ko buggee ma indil la ko ci opération rëbb dëmm lépp dinaa la wax tur ku mu àndaloon xale bu mu àndal te mag ko fuuf hôtel yoon demoon ñaata temps lañ fa def lépp barke alxuraan billaahi dossier yëpp maa ngi ko teg nii mais boo gisee loolu waxuma ko ndax doomam Marème Faye yëgul loolu doomam Marème Faye yëgul bo ak yeneen dossier yu ma xam yu bëri ci sa famille dugg ci man de dossier laa téye nii nii nii nii teg teg nii mën naa la wax sa maam avant moo daanu AVC fu mu jaar yëpp ku mu àndaloon ak fu mu demoon hôtel beeg lépp tegal la ko moytul de booy kon say yooyu de yemale ko fële de say say dof-dof lu googu ngay def yemale ko fële ci ñooñu de demal ci ay ñoom baajaxate di a ko diw boo duggee ci man faatu de boo duggee ci man dee de tey boo ma laajoon say mbokk ñu moytu ma man kenn musuma wax ba bañ ba dindi yow yaay premier bu juddu démb naan di nga may jéem a devantiir dama lay rey de dama lay yóbbu laa am si de <laughs> damay toj seen de damay toj seen kër damay damay toj seen xuuru maam de damay namp seen xuuru maam Oumiatou Diallo toj seen xuuru maam damay damay toj de booy moytul bu baax a baax a baax a loolu daal laa lay xamal say baay ñi muwuñ ma jege say baay ñi muwuñ ma laal kon booy doom moytul de dama laaj say baay lu tax ñu may moytu dama laaj ma cuucu fay lu tax moo may moytu dama laaj Adama fay bi mu dugg ci caayam lu tax may moytu di sa baay dama laaj Ibrahima Faye mu dugg ci caayam ca Amérique ba muy jaay yàmbaa bañ ki dama laaj ko lu tax mu may moytu dama laaj Macky Sall lu tax mu may moytu dama laaj sa bàjjan officier lu tax mu may moytu boo ko xamee di nga moo bu baax baax a baax di nga xoolal ñëpp wax naa ci ñoom kenn mosoo génn ko gis naan day génn naan dem ay day demantir ngay tëñëx tëñëx wundaalu ni ngay def ba dee ci ci euh, lu occasionnel moytul de waxuma lu bari parce que xam naa ne xamoo dara lu xew ci seen kër mooy tul de booy toogal fii nga lijjanti sa bopp da bañ a sax dugg ci ay ay ay nag boo ciy dugg di dee boo ciy dugg say say waa waa kër ñàkk na boo ciy dugg di yàqule ndax boobaa dinaa la rang dang fang sa dund bàyyi fu mu jaar ba doy nii rëbb dëmm sa baay rëbb dëmm say maam rëbb dëmm say nit teg leen fii tuuti laa ñam ci ñoom ñu daw kon boo xale bu ndaw moom Buku ko bëggee yar dang nga koy romb dom jaham. rëkk malah doom jaxam waxuma mam. nak dem ci say mam attention man duma waxantu waxantu de deh. waxantu de information buma la jox kamil mais alors yene nga faj abdourahman abdourahman Faye yene nga hein na ngeen ko duggal ci ay nek tej ko fa bu len ko bàyyi non parce que bu mu genné ci salon ba par tasaro fo gars daw euh, gani tasaro tasaaroo tamit rafatul gani yoy mom gani gan ñoo ko jox mom gani kenn ci gani mom mo moo ma woon xam nga ñoom dañoo mën a nettali Sénégal voilà voilà yow la nga doon léegi mais voilà yow na dafa xam loolu voilà voilà bu ma la nettalee jour bobu ma ah laa la gone gi bu mu génn nekk sullam googu di tinix tinix ñuul kukku ma ne ko laa lu ñuul mu ne coq yaa nga fees dell ci tuuti ci tuutiam je coq ya wër tuuti ba ma ne xam naa loolu moo tax mu naan ñuul quoi mu génn ak sullam gu ñuul gi coq yi wër ñuul ma ne ko ah dof dof génn laa la di yuuxu ñëpp taw tasaaroo salon ba yéy waaye keroog aadama xam kenn xamul ma ne ko oh, looy wax muni gay gaay tasaaroo daw nu mola yow li ngi wax lepp deug la xana kay ci tur ba nga djoum mais li nga wax yëpp deug la ma ne lay lay mooy ko ne bu mu génneeg cuucam googoog ak tok ya fess del ci ma ne ko donc booy bul pande sa bop sen famille bu amé dof ma ñew ne ab ki dof boo buggul wili pandelu da ngay noppi mais boo buggee di naan da ngay génn naan da ngay démystifier ñu wax la ne Abdourahmane fay dafa dof te kër gi nii la demee sa kër sa baay ko jëloon nii la demee bul sulli say mbóot bul sulli say mbóot bul tax ma gën a dugg ci seen famille opération rëbb dëmm bul tax ma rëbb dëmm seen famille tegal leen ko fii am na yu nëbbutu yoo xam danga ko bàyyi noonu bul ci dugg bul ci dugg bul ci dugg booy sa famille ñoo la ñoo la saax saaxe parce que ñoo la yónni dégg nañ sa tër demal nga fen loo ko demal nga fen loo ko nga fen loo am nga dof looy dem di fen loowaate looy dem di fen yow juum ngay fen loowaate te ñoom ñu lay wax naan dem loo nga fen loo ko ñoom kenn ñi mooma song ci ay fen loo ma tuuti nga ci de kon nag jàpp leen Ibrahima fay doom ji naan Abdourahmane Faye newoon fii ci ne woon Amérique daf fay toj-toj sàcc fa alal yoreen gouvernement bi ñëw fi ñu dugaloo ko xaalis dof na ma nga Sénégal di faju génn na ci salon kër ñoom Adama fay doom na di baayam bokk ak baayam ndaay ak baay di Ibrahima Faye bokk ak Ibrahima Faye ndaay ak baay boobu Abdourahmane Faye génn nañ ci saal ba ak ak sullum ak ak ak coqam yu bëri tuñux tuñuxi kooy gi gan ya tasaaroo kër gi ñuy mbëkkante ku nekk di wut buntu ba noo génnee te dof boobu kii nga xam ne mu ngi fii di Mansour Junior gis na ko kon nay leer boo yarut booy yaroo maj sa tàngal yéey sa guro ñun say say yaay la xeex ñoom ñoom oyof sër te wax xam nga tur boobu fu mu jógee ñun say say say sa sa sa jëkkëru baay sa jëkkëru yaay sa jëkkëru bàjjan la ñuy xeex sa bàjjan la ñuy xeex oyof sër ak sa jëkkëru bàjjan Macky Sall yow dañ la xeeb sañuy bazooka sañuy bombe atomique xaj matu la sax seconde da ngaa tuuti lool toogal fii rek yaa ngi Québec yaa ngi fii Montréal lijjanti sa bopp ñun sañu doole daa dis de xajuñ seen kër sax xajuñu fa waxuma laa yow taxawel ne rek taxawel ne taxawel ne te sama ñaari gars yi ñoo ma ñaan ne ko dawal ko yërmande mais ñun suñu diisaayu loxo suñuy diisaayu riir suñu riiru dënn suñu suñu suñu géej nu muy suñu géej day baaw naan bu fëqul gaal su li néew suñu géej day baaw naan dama laaj ma ma cuucu fay maa ko rey rendi tegal ko ci sër sër kay suul ko ma cuucu fay kon nag booy ma cuucu kuñ la tuddee yabuma kon moytul de waaye moytul de sinon ma wax la say juróom-ñaari maam de dafa bëri lu ma nëbb na